man la euh, Adja Oulimata euh, superviseur Kati Travel Tour euh, du voyagiste privé yaakaar naa ne nag tey yéen ñëpp ko gisandoo ministre bi tubaarkàlla lu mu daan def rek defat na ko man nag euh, Mankeur Ndiaye monsieur le ministre des affaires étrangères li nga xamne mom la ko nawé diko wax tous les jours moy que ne bi muy amaguñu won sax 20 privatisation accident 95% ou même 98% privatisation parce que 10500 moy nombre de pèlerins yi Sénégal di convoyer té actuellement 9500 yépp euh voyageurs privés ñokoy convoyer kon l'état ne convoie que yaakaar na na fofu suñu jambar gi le président Macky Sall dañ ko ci kañ diko ci gërëm ndax ba mu togué daf na won vers la privatisation yaakaar naa ne naxul kenn lâché na 500 di junni pour pour pour commission nationale kon kooku li mu waxoon mi ngi koy def ndax ku daan convoyé 9000 9500 nga dem ba convoyé tool lu dul 1000 yaakaar naa ne kooku li mu waxoon mi koy def kon nag gis ngeen le président manqué fu nekk dugg na fa pour xam aj gi nan lay demee nan lay doxale ñëw na sax ba ci ñun voyage privé yi visité suñu bureau kon loolu lu am solo la Ndiaye ñu ngi koy ñaanal. gannaaw bu ñu jógee nag ñëw ci ki nga xam ne moom lañu fi teg muy euh, Abdou Aziz Kébé le délégué général au pèlerinage ku ne xam na ne l'année dernière zéro problème la def ci ci pèlerinage dul ay at a ngi nii loolu gët na fee am ren it loolu la ñuy ñaan ñu convoyé dem ci jàmm ñëw ci jàmm mu nekkaat encore zéro problème te ni mu tàmbalee di concerté wu ak voyagiste yi lu mu man di doon mu teg ko s'il y problème nag problème bi ci biir voyagiste la

Mais je vous dis que ce qui est important, ce qui est très important dans cette opération plénale, c'est la privatisation que le président a respectée à la lettre. Il nous avait dit qu'il va vers la privatisation. aujourd'hui, le gouvernement a convoyé 9 000 plaintes. Aujourd'hui, il est à 1000 plaintes. Donc, je crois que le président a respecté ses engagements. Et c'est ce que nous avons demandé, la privatisation. Il 1500 l'année dernière. Cette année, il en est à 1000. Il a lâché les ans. Donc, c'est sûr et certain qu'il va vers la privatisation. Et cela, nous remercions notre ministre de tutelle, le ministre des Affaires étrangères, parce qu'il continue à pousser le président à aller vers une privatisation. Avant qu'il soit là, on n'avait même pas 20% de la privatisation. Actuellement, nous sommes arrivés à plus de 90%. Donc c'est arrivé chez eux. Il reste seulement l'organisation des voyages privés et il nous dit qu'il y aura toujours une commission de supervision pour superviser les opérations du Hajj. Et ça, nous sommes parfaitement en accord. Euh, les appréhensions par rapport à euh, Abdou Aziz Kébé à la tête de la commission Abdou Aziz Kébé, moi je l'apprécie beaucoup et, c'est l'avis de tous les privés, tous les voyagistes privés qui sont de bonne foi. Parce qu'il met en priorité la concertation. Il se concerte pas seulement avec les responsables de voyagistes, mais chaque fois qu'il a une décision très importante, il est formé de cette décision. Et, c'est en concertation pour nous avons concertation. Euh, le secteur qui occupe plus de 90%, on ne peut pas, il se concerte avec les voyagistes.